asalaamaaleykum mbokk yi dal leen a jàmm fii ci jéego l'espoir lépp premier ministre Ousmane Sonko mën nañoo wax jamono yi Tiwaawan ña ngi koy xaar ña ngi koy xaar fële ca Tiwaawan date ba mu fay dem wala nam fa demee dinaa leen ko wax kii di le premier ministre Ousmane Sonko bi ñu jub see gàmmu gi nga xamante ni moom lañ war a màggal yenente bi fële ca Tiwaawan donc moom dina fa dem ci le bi nga xamante ne moom lañu jublu d'après ay yi nga xamante ne am fa demee dina fa waxtaane kàddu yu am li nga xamante ne mooy animé actualité bi jamono yëpp mooy mbirum Cheikh Omar Diagne ñi nga xamante ne nag ñoo doon wax lu amul naan dafa dem fële ca Touba eh, di wax ni xamul Cheikh Omar Diagne dama leen wax ñooñu nañ noppalu ndaxte waxuñu dëgg eh, parce que moom mii di Ousmane Sonko eh, ba mu demee fële ca Touba dem privé lam fa wax mooy wax na ko wax leer nañ rassuré na ko mais surtout que wax na ko ne ko xam na ko incha allah dinañ waxtaan ak moom ci kàttanu yàlla ah lu ci manti am rek kàcc yu fi manti def ñun dinañ ñëw leeral ko jaa ngeen